الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ginnaaw sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sëriñ amul kenn de jaam ci dëkk jaam yi di njëriñ ñàkk ge jaam li ñu doon suñu borom subhaanahu wa taala di seede dëggal ne Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent yàlla la yàlla subhaanahu wa taala daf ko yónni ngir mu jëlee ci lëndëm daal di ñëw ci li nga xamante ni moom mooy leer comme niñ ko xamee ñu war a am ak muhaadara ak suñ doomu day tudd Sall moom mooy xafidahullah mu jëm ci tafsir ko tafsiru quran comme waxtu daf xaw a dem waaw duñ guddal dañ koy jox nga dugg ci li nga xamante ni moom mooy tafsir bi incha allah
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد mbokk yi ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di julli di salmal ci ab yonente Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi nu ngi ñaan sunu borom mu dëkkee doot ci waamam xéewal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain nu ngi ñaan sunu borom bi asmaihi alxusna wa sifaatihi alula suñu jotaay bi mu boole ko jotaay bi barkeel borom bi defal ñu tawfiq ñu bokk ci ñi nga xam ni bu ñu déggee wax dañuy seet li ci gën a jub li ci gën a baax ñu topp ko comme ni ko mbokk bi junjee saar wi ñu sàkk woon ci ñun ñu fàttalente ci mooy suuratu sajda saar wi di suratu sajda saar la bu màgg comme ni nga xam ne alquran léppam lu màgg la suratu sajda bokk na ci saar yi wàcc ci Makka bokk na ci solo saar bi mooy yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ni ci sunnaam baaxawul moos ñi am genn julli bu ñuy julli di am saar yuñ cay taamu wala liñ cay baamu lu dul lu néew ci ay saar lu mel ni julli witre am na aayu corot nga xam ne yonent bi da koy taamu lu mel ni julli aljuma lu mel ni julli ayid wala yi nga xam ne nit ñi ñooy taamu aw saar rek di ko jàng ci ay julli loolu dafa juróom njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amma suuratu sajda bokk na ci solo si mu am li ko doon wundu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom doon na ko jàng ci bisu aljuma suratu sajda ak hal ata ala al insan ñaari saar lañ yoo xam ne dañoo am lu nu bokk moo tax al allaama ibnul qayyim rahimahullah di wax ni suratu sajda ak suratul insan boo leen boolee da ngay gis ni li tënk sosub doomu aadama ba keroog muy taxaw ci kanam borom mu tàbbal ko aljana mbaa fa ca des ñaari saar yi da koo tënk comme ajjuma bisam ajjuma ci la àddina di tukki ah borom bi subhanahu wa taala ci njàngale yoon saa salaam bu nu yoonee nit ci njàngalu mel ne ci bisu aljuma loolu amaan na bu xelloo tuuti mën naa am lu mu def ci moom ci fàttaliwaat ko àllaaxira fàttali ko dee fàttali ko ni fi def fi jóge beneen bi ci def al imam ahmad mi ngi nettali ci musnad ci xadis boo xam ne bu wér la mu ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ñu toxal jële ci jaabir daawul tëdd lu dul dafay jàng ñaari saar yi muy suratul mulk ak suratul sajda kon bokk na ci yi nga xam ne nit ki buy tëdd mën na koo def ci azkaar yi rot bokk na ci suratul sajda waaye bokk na ci suratul mulk muy suratul tabaarak xadis la nga xam ne ko solo ci moom nag xadis la bu wér Cheikh Nasir al Albani rahimahullah wéral na ko ci silsilatul ahadith saxiixa suuratu sajda comme ni ñu ko waxee sànq saar la woo xam ni bokk na ci yi nga xam dafa mën a nàmmaat xol delloowaat ko ci buum gi nga xam ni moom la borom bi subhanahu wa taala bëgg mu yeewu ca foofu nag damay wax ni maanaam xam ngeen ni alquran ci gën a mën a nàmpal xol la bokk alquranul karim ci gën a mën a nàmpatal xol ca la bokk rawatina xol ku gëm yàlla rawatina nag ci jamono bi ñuy dund nga xam ni maanaam qualité yi ñu doon am ba alquran doon def jeexital ci xol yi ñu gëm yàlla qualité yooyu amatut defe naa bu fekkee li may yëg man loolu ngeen di yëg maanaam nit ki su fekkente ni xolam dafa baax maanaam waxuma la sax ñu di ko tafsiral alquran waxuma loolu waaye jëmmi di ko jàng même bu xamul lu mu tekki sax maanaam bokk na ci kéemtaan yàlla def ci alquran mooy loolu mooy bu fekkee nit ki dafa baax le xol buy jàng alquran même li muy jàng ku xamut lu muy tekki dafay def tafsir ci xolam ndax loolu waxu yàlla la subhanahu wa taala maanaam waxu yàlla nekkul waxu ke comme keneen ku ñuy wax ay waxam rek su fekkente ni benn nit boo xam ne ay taalif wala ay livre lay bind moo mën a wax ay wax yu daw yaram ba ñenn ci nit ñi ba leen ko jàngalee ñu yëg dara ci seen xol waaw fa kay faka rabbul ibad muy borom jaam yi subhanahu wa taala alquran dina gën a def jeexintal ci xol mbokk yi su fekkee nit ki mi ngi def ak taxaw seetlu ci li muy jàng waaye xam na lu muy tekki moo tax bunt bi yow dama ciy soññi sama mbokk di ci soññi mbokk yi lu ñu mën ci jonjonteeg ñi nga xam ne ñooñu tey téere yàlla bi jàng ko ci ñoom jàngu saxaaba ya jàngu saxaaba ya mooy lan mooy lu wuuteeg li ñuy jàngee ñun ñun dañuy jàng ngir bëgg a wàcc ñun dañuy jàng ngir bëgg a mokkal ñun dañuy jàng ngir bëgg a àgg ci saar sàngal fekk loolu du jubluwaay bi parce que yooyu dañu la ci laaj benn boo faatoo liñ lay laaj mooy njàngum saxaaba ya mooy njàng pour jëfe comme ni ko Abdullah ibn Mas'ud doon waxee ñoom daawuñu weesu fukki aaya te loolu taxal nañ ko jëlee ci Abdullah ibn Mas'ud taxal ko jëlee ko Usman ibn Affan taxal ko jëlee ci Umar ibn al-Khattab saxaaba yu bare bare wax nañ wax ju mel noonu di wane ne ñoom seen njàng par fukki aaya lañ doon jàng bu nu jàngee fukki aaya duñ ko romb lu dul dañ ko nafar mokkal ko seetlu ko seetantal ko jëfe ko te loolu mooy objectif juróomi mbir yooyu mooy objectif ab jullit di jàng alquran ma al asafi shadid boo seetloo ñun alquran daanaka jëriñu ñu tax ndax téere la boo xam ne ni mu waroon a jariñee ki gëm yàlla ñoom jariñoo wuñ ko noonu bal sax da ngay gis ni am na ñoo xam ne dañoo nekkoon ci leneen du dugg ci lislaam ñoom ñoo ñuy gën a xam sax valeur li ñu yore muy alquranul karim moo tax gis nga ñu njëkk ña bu ñu yëgaan ñaggi ñaggi xol wala feebari xol dañu yëg ni consulté wuñu seen bopp fu gën a gaaw te gën a garanti dellu ci téere yàlla maa xam ngeen ni bépp tawat boo xamee tawati xol la ak tawati jëmm ak tawati yaram ak jum mën a doon ci tawat yi lu dul alquran da koy saafara wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifa shifaun li jamii al amradi wal asqam ma fi alqulub wa ma fi al ajsam mboolem luy tawat xatta nit ki nga xam dafay jàng alquran di ko jëfe di ko seetlu gis nga bu ko feebar dalam tey mu wékk xolam ci yàlla dëgg dëgg mu waxe ni mu wékkee xolam ci yàlla mu jël alquran mu jàng ci mu ñaa mu naan ko te loolu dara nekku ci su fekkee nit ki defut leen dañu jóg njàngale sa salam wallahi loolu yàlla mën na ko caa saafara te lu bari ci aimatu salaf dañuy nekk li yu mel noonu da leen a gaar nga xam ne alquran moom maanaam dafay saafara lépp waaye nag dafa am tawat joo xam ne dara mënu koo saafara nag jurul alquran mooy tawati xol tawati xol moom te ñun ñëpp a ko feebar na moom kenn mucc ci du man du yee ndax loolu moom jël rafetal na njort tawati xol jooju ñun ñëpp ñoo ko feebar te nente nag am na fi am na koo xam ne léeg-léeg mu yëpp xolam fudd waaye fudd bu gàtt lay doon daal tëdda néewaat nemm parce que dafa am lu ko puus ba mu yëngatu bu baax am na mu fekkee nit ki mi ngi nàmpatal xolam ci alxuraan ba mu regg wallahi kooku lu ko jooyloo ci alxuraan dafa yomb trop lu ko lu ko lu ko soppiloo aw dundam dafa yomb lool waaye lu tax nit ñi bu ñu ko xoolee nga xam ne kii vraiment changé na maanaam man kii ma xamoon ak léegi bokkuñu lu tax parce que alxuraan dafa gaaw ci soppi nit ba gën a gaaw leneen luy soppi nit bu hidaayatu rahmaan jàllee moo tax ma wax ne magi salaf yi ñoom saa bu ñu mësaan yëg feebaru xol dañuy delluwaat ci alxuraan xaw ma lu tax ngeen tànn seen programme bii di ci boole tafsir ginnaaw bu ñu xamee loolu xaw ma lu tax ngeen tàmm suratu sajda waaye ñaar yëpp bu ci nekk lu am solo la ndax bu ngeen xoolee mbind yi jot a jàll suñu borom def tawfiq ñu dajee bi am ko ca daanaka saar yi tànn yëpp am solo lu ko mel ni jeexitalu suratul muminuun lu ko mel ni suratu qaaf lu ko mel ni wasaay nekk suratu anam yëpp boo ko xoolee benn bu ci nekk daanaka lu ñuy jëriñ rek ci nekk ànd ak alquran sax lépp lu ñuy jëriñ ma nga ci ayima yu mag yi ñoom bu ñu masaan a feebar ci téere yàlla bi lañ doon fajoo même ñu doon faje bu ñu jógee faj feebar ci téere yàlla bi la ñuy fajaatee benn bis ci bis yi Maymun ibni Mihran imam ju mag la ci aimatu salaf dafa toog këram ba mu yàgg mu yëg ñaggi-ñaggi xol mu ni man de sama xol bi fi mu nekk nii li ma daan yëg ci ngëm ak ni mu doon mel ak ni mu daan defee jeexintal ci su may jàng alquran ak ni ma daan yëgee caf ci jaamu yàlla amatul mbokk yi ñun kenn ku ci nekk boo yëgee lay metti ci sa yaram da ngay xool ban hôpital ngay dem ba faj noonu la wala déet waaw li ñuy metti ci suñuy xool est ce que jéem na noo def benn pexe pour mu saafaraw déedéet loolu li muy wund lenn rek la mooy tawati yaram yi ak saafaraawam moo ñu gën a yitteel tawati xol yi tawati xol bu saafarawul dafay tàmbal borom safara te tawati yaram moom mënut lu dul fa muy mujjante yow faat la mooy la gën a réelu man mënu koo paase tànk bi dafay metti bëñ bi dafay metti loxo luy metti nga seet médecin boo xam ni moom xaralay àddina la jàng pour mu consulter la faj la est-ce que mës ngaa jug yow mbokkum jullit benn bis ci bis yi wala marratan fi umrik nga yëg ni da ngaa bëggoon ku consulter sa xol nga seeti ku la tane koo xam ni kat ak ragal yàlla mi ngi ci moom koo xam ni kat peeg na alquran wala peeg na ci lu bari nga dem ci moom gaaral ko tawat di nga yëg ci xol pour mu consulter la su ma xawoon a amu dëgër fi damay wax ni kon loolu amul ci kenn ci ñun Maymun ibn Mihran bi mu ñëwee mu xalaat mu ni man day gisut ci jamonoom ku ko doy ba mel ni imam Xasanul Basri mu jógee këram fekk jamono jooju film xan ab goneem di ko wommat ba mu ñëw ci buntu kër Xasanul Basri fekk Xasanul Basri nekk ci biir mu fëgg mbindaanam Xasanul Basri yi génn bi mu génnee ni kookan la ndaw si ni kookan la mu ne ko Maymun ibn Mihran xam ngeen wax dëgg yàlla su xab borom xam-xam sax war naa mën a am xam-xam ndeke ndaw si moom it jàng na ci Xasanul Basri ndaw si mu ne ko yow sëriñ bi loo fi def di dund ba jamono ju bon ji lu la teree dee ak ñi nga màggate mënoo war a dee loo fi def ba heure bii Maymun ibn Mihran daal di jooy jooy yu métti ndax wax na ko wax ci jam xolam ndax booba màggat na te lu bari ci dundam dem na mu ni ko jamono ji ni mu ni mu ni mu yàqoo nit ñi nit ñi jamono yi ni ñu yàqoo yow loo fi def mënu woon a dee boobu ba léegi Xasanul Basri daal di génn bi mu génnee mu ni ko lu xew mu ni ko man day damaa yëg feebari xol te yëg naa ne jeexantal bi ma doon yëg su may jaamu yàlla ak bu may jàngal kon amatut ma bëggoon nga consulter ma sama xol bi saafara ma allahu akbar xoolal salafu saalix ñoom lu tuuti ci alxuraan la def jeexintal ci seen i xol ñun nag waxuma la sax lu tuuti ci alxuraan sax ñun lu bari ci alxuraan sax mënut def jeexintal ci ñun maanaam ñun bu doon ñëw da nga fi nekk te aaya ay xadis tari ay wax lu ne nga wax wax ju bari Xasan al Basri benn aaya la ko jàngal góor gi daanu suuf xëm aaya ji nekk suuratu Shuara afaraayta in matta'naahum sinin summa jaa'ahum ma kaanu yu'aduun ma agna anhum ma kaanu yumattaun bi mu yeggal góor gi daanu ci suuf ndeke dafa xam xasanal basri duggaat ci biir néeg suñu borom mu ni waaw seen fan mu gudd mi su ma leen guddaloon seen fan ba mu gudd gudd gudd ba fan mi gudd mu ngi méngoog li ko ndaw si wax ba mel ni ngeen bëgg ginnaaw ci loolu yàlla dikk ak ay mbiram dee daal di yegg fan mu gudd mi lu mu lay jariñati góor gi xalaat ci aaya jooju benn aaya bu gàtt boobu rek mu daal di daanu xëm tëdd na fa lu mat waxtu ñu doog ko yëkkati mu jóg dem ñibbi Xasanul Basri ba léegi waxul ak moom lu dul aaya jooju kese loolu istishhad biñ ci soxla mooy ngir nga xam ni kon alquran ci boppam moom fa mës a nekk fa la nekk xol yi kay ñoo déplacé bu fa nekkoon bu fekkoon te ni ña ngay nekk fañ nekk da leen di jariñ ñeenti mbir ngi yoo xam ne nag moom laay tàmbalee pour kenn ku ne ci ñun mbokk yi ma bëgg ñu bàyyi ko xel yu am solo la borom xam-xam yi dañuy wax ci manazilu sairina ila allah muy escalier yi nga xam ne nit ki bëgg a jug yegg ci yàlla ca lay jot xam ngeen ni kenn ku nekk ci ñun li ma foog li ma bëgg foog naa ne moom ngeen bëgg ku nekk ci ñun li mu yëg ci xolam mooy bu sañoon tay tay mu nekk nitu yàlla dëgg dëgg dëgg noonu la wala déet axam kay léegi nag da ngay ñëw bëgg nekk nitu yàlla waaye doo xam wan yoon ngay jaar wan yoon moo gën a gaaw borom xam-xam yi daanaka lépp lu ñuy aajowoo taalif nañ ci ko bakk fi gis nga al-allaama Ibnul Qayyim am na téere bu am solo boo xamante ni gisuma tegaguma ak sama bët wala ma dégg ak sama nopp téere bu mel ni moom ci buntu bii may wax muy manaazilu saa'iriin madaariju saalikiin escalier yi nga xam ne mën na cee joggi ba yegg ci yàlla subhanahu wa taala boo ci demee indi ci ay manaasil yu bare bare bare waaye la ma ci soxla rek mooy ñeenti mbir bi muy tàmbalee dafa tudd ñeenti manazil yoo xam ne ku nekk ñun war na cee bàyyi xel muy manzilatul yaqaba manzilatul fikra manzilatul basira manzilatul azm manzilatul yaqaba mooy étape ab yeewu dafa mel ni bi nga àgg gudd ci am benn cër ci yàlla da nga nekkoon kuy nelaw aji nelaw ji bi ñu ne ko pëkk pëkk mu jug li mu jugee kat dafay yeewu waaye après gis nga boo yeewoo te deful dara kenn wax ko fa mu jëm dafay tëddaat nelaw léegi yàq ba bu amee nit ki dafay commencé di xalaat man de tul fikra daal di ñëw nga commencé di xalaat man maay kan lan moo tax ma ñëw fi lu yàlla nam mu ci man gis nga yooyu mooy tax nit ki xelam di ubbeeku ngir mu mën a daj njub bu ko yàlla nambalee njub ci lay jàll ci ñetteelu étape muy manziratul basira muy bëtam yi commencé gis nag muy gis kaw ci suñu borom bi di xàmmee cër yi yàlla moom cër yi yonent bi moom cër yi nit moom li borom bi sotala mérito fi ma war a yem lu ñu war a dendal def war a dendaleeg suñu borom di xalaat yàlla sotala ubbil ko basira ah qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basira gis nga bu manazir ñetti manazir yooyu wéree benn bu ci nekk laaj na dèjà sax maa jóg moo tax faram-fàcce gi du mën a jàppandi waaye nit ku yegg ci manziratul basira nag foofu benn manzila moo koy dese pour nag mu xàll yoon pour jëm ci suñu borom muy manzilatul azm donc gis nga dañuy ko wax manzilatul basira ñëw na manzilatul yaqaba ñëw manzilatul fikra ñëw waaye manzilatul azm di ñëw moom ngay gis benn waaye bu xam sunna xam njub mu wér na ni kii yow ni ngay dund sax moo la ko gën a comprendre waaye saay saay nekk ca lam nekk parce que manzilatul azm moo ñëwagut gis nga manzilatul azm bu ñëwee nit ki dafay daal di mel ni dox bu rëcc kenn dootu ko mën a tourné ci su boobaa dafay yëg ni lépp loo xamante ni moom la pas-pas di laaj jox ko ko man daf maa arrangé maanaam jox ko gëdd yooyu jox ko suñu borom soo tax daf koy arrangé ci boobu ci ne nit ki gaa di yëgee nag responsabilité bu rëy bi ko war ci jaamu yàlla ci lay commencé séq ay jéego nag jëm ci suñu borom manzilatu tawba manzilatu shukr manzilatu yaqin manzilatu sabr manzilatu ixbaar manazil yu bari yoo xam mat na téeméeri manazil ak nangam nga xam ne nit ki moom bu ko toppee benn par benn dajeeg koo xam ne ñu ko tuddaa sayxul murabbi yar ko ci gis nga kooku dafay dem ba dafay wallahi qul a'uudu bi rabbil falaq buñ ko jàngalee mu def jeexintam ci xolam qul a'uudu bi rabbin naas mu def jeexintam ci xolam malik yawmi diin mu def jeexintam ci xolam lu tax parce que xol bi dafay nekk comme am tos mooy fii mi nebere ñu jël def ko ci suuf comme engrais ba suuf si nangu nga xam ne loo ko bay mu jéggi xol bi noonu lay mujj mel loolu la saxaaba yi amoon loolu taabi'u yi amoon moo tax loo jëmbat ci seeni xol ci alquran ak aaya ji lu mu ndaw ndaw day def jeexantal ci seeni xol nu ngi ñaan suñu borom bi asmaahil safat mu defal lu jàppandal ba loola ñu jéem ñu mu yomb ñu insha allah kon saar wi di surtu sajda saar la wu màgg saar la woo xam ne mu fees la mu ki ak i jàngale borom bi subhanahu wa taala mi ngi ko tàmbalee li muy tàmbalee saar yi nga xam ne ñoom ay alxuruf almuqattaa xam ngeen ni dafa am ay saar ci alxuraan yoo xam ni dañoo dajaloo niiroo ci bunt bi nuun ca suuf a suuf xoof sood xaamim xaamim ayn sin xoof alif laam miim alif laam miim ra alif laam miim saad ah kaaf ha yaa ayn saad ila axiri li ko tàmbalee ci juróomi xaraf ba benn xaraf muy noonu ak qaaf ak saad yooyu la ñuy tuddee alxuruf almuqattaa fii nag borom xam-xam yi tafsir yi buñ ci yegsee kenn ku ci nekk dana ca wax lam ca wax nun nag lan ca daan wax fukki at ca gannaaw ba tey moom la ñuy wax yaakaar na moom la ñuy continuer di ko wax mooy aay joo xam ne ba ca Abubakar sëppee lii la ca wax Omar bu ca sëppee loolu la ca wax Osman wax ca loola Ali wax ca loola bu ca keneen waxul woon loola ñun doyloo nañ loolu al allaama ibnu kathir rahimahullah ci tafsiram bi muy tafsir suuratul baqara bi mu yegg ci alif laam miim dani aay jii di borom xam-xam yi juuyoo nañ ci wax nañ ci ay wax yu bari waaye wax yi ci gën a dëgër ci gën caa wére mooy yàlla ci boppam moo xam lam ca nam loolu nag fii wax ko fii réew mel ni Afrique soow jant rawatina Sénégal gàcce la ndax boo ne yàlla moo xam lim ci nam dañ ne la amoo xam-xam xamoo dara waaw bu ñu ne xamoo dara nga bañ a xam dara farak Aboubacar bañ a xam dara farak Omar bañ a xam dara kon ala kullin yàlla subhanahu wa taala daal aayaat yi daf ko def mu nekk ijaaz ci téeréem bu tedd bi ngir ni alquran kat mi ngi composé woo ci xaraf yu mel nii waaye doomu aadama yi mënuñoo fexe ba indi benn aaya bu ni mel mu teg ci benn saar wu ni mel mu teg ci alquran ju ni mel xatta ba ci benn aaya nit ñi mënuñu ko keree mel ni alquran loolu kon ijaaz dëgg la di war ne alquran kat borom bi subhanahu wa taala mooy ki ko wàcce moo tax sunu borom bu ni alif laam miim mu ni tanzilul kitaabi laa rayba fiihi min rabbil aalamiin sunu borom mu ni tanzilul kitaab wàccu téere bi di alquran laa rayba fiihi sikk sàkk amu ci ci ni min rabbil aalamiin yi ngi bàyyi ko ci borom bi subhaanahu wa taala muy borom jaam bi maanaam wàccu téere bi wàcc gi alquran wàcc werante amul ci sikk sàkk amul ci ni mi ngi bàyyi koo ci borom bi subhanahu wa taala loolu nag bokk na ci li ko waral mooy xam ngeen ni nit ñi dinañ di faral di wax ni alquran yonente bi dañ ko koy déey jinne yee ko koy wax asatirul awalin iktasabaha fahiyatum la alay bukratan wa asila kenn ku ci nekk wax ci ne ma qawlu shaair sunu borom wax bi qawli shaair wala bi qawli kaahin yii yëpp borom bi subhanahu da koy wane ngir ñu xam ni alquran waxi sunu borom la waaye nekkul waxi keneen xam ngeen ni borom bi wér na ci xadisam jaabir ni yàlla subhanahu wa taala wàcce na ci kaw suuf téeméeri téere ak ñeent cent quatre téere sunu borom wàcce na ko ci kaw suuf yi ci gën a siiw mooy ñeent yi nag tawraat zabur injil quran borom bi téeméeri téere ak ñeent dafa jël la ca nekk lépp tënkaat ko ci biir ñeenti téere yi muy tawrat injil zabur ak quran li ne ci ñeenti téere yi suñu borom jëlaat ko tënkaat ko ci biir alquran moo tax alquran gën a matale ñëpp li ne ci biir alquran suñu borom jëlaat ko tënkaat ko ci biir fatiha moo tax ñu tuddee fatiha ummul kitab ndeyu téere bi li nekk ci biir fatiha ñu jël ko tënkaat ko ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moo tax ñaari baat yooyu mooy lëbbul quran te lii lu wér la bàyyi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon téeméeri téere ñeent yooyu moom la waroon bi wàcc waaye alquran moo ci gën a màgg suñu borom ni tanzilul kitab wàccu téere bi laa rayba fii sikk sàkk amu ci ni min rabbil alamin mi ngi bàyyi ko ci borom bi ndee fi muy yàlla subhanahu wa taala kon wax yàlla la ana ban yëg-yëg la nit ki am bu fekkee mi ngi jàng alquran yëg-yëgam lii kat waxu buur bu màgg la tanzilun min hakimin hamid tanzilun min arrahman arrahim kitabun fassilat ayatu ah gis nga kitabun uhkimat ayatu summa fassilat min ladun hakimin xabir aay yu ñu faram-fàcce parce que mi ngi bàyyi ko ci ku xereñ ku mel ni borom bi subhanahu wa taala suñu borom mu ni am yaqul am yaquluuna iftaraa am wala boog yaqulun dañuy wax naan iftaraahu Muhammad dafa fent alquran bi bal déedéet li am mooy huwa alxaqu min rabbik yonent bi fentul alquran yonent bi benn xaraf waxu ko ci alquran benn xaraf ak lu mu tuuti tuuti xatta walaw kaana xarfa taadin yéen ci yàlla mu dugalu ko ci alquran ñeme ñu ko sax sax mu ne bal li am mooy huwa alxaqu alquran ji mooy dëgg min rabbika bu bàyyi ko ci sa borom li tundira ngir nga waar qawman aw nit woo xam ni maa ataahum dikkeewu leen min nadirin ci ab waarekat min qablika ci la jiitu woon laallahum amaan na boo leen